ngi jékkeem aja aja aja docteur aja aja ndox mu tàng maa ngoom mburu maa ngi aja mburu maa ngi naa kafe geeg basaab bi yëpp man de tey faa xiif man faa xiif xiif boo xam jinne la bi. jinne mbay ci la. yow naka la nit a dog jot na xam xam nga dog jot naa las kalañ de faa xiif tey moom. Faalu naa ndoxu tàng ndoxu fii ma naan ci basaab bi waaye basaab bi. faa ma déet sëñ waxuma mau sax allahumma laka sumtu wa bika ala rabbika noonu lañ ko da waxee basa na de ak ci mi ak ci mi man fa xif eh? wa déglu ma waxoon nañ ma ni góoma ko waaye ko bëgg ko ne yéen bitim réew boo leen fi ñëwee fa ngeen ay soppeeku sëñ bi yow yow nit di gi allah sax ku ji ne dog jot na dog leen ah nga ne yaa waxtu wi ndox mu tàng maa ngi chocolat yaa bu la si neex mburu maa ngi nii du ba nga yekk sëñ bi man fàq bitim réew lañ ne sëñ bi du nga yow fa nga xaw a manqué alaska lañ ne fanka si fanka xamul loolu alaska lañ ne waaw alaska lañ ne xanaa naawu tàng wi lu yër bi def naawu tàng wii xam nga lu yër bi def waaw moom kay fu nekk nii juróom-ñaari waxtu yi waaw naaj wi moo génn rek bu dee alaska nag juróom-ñaari waxtu faa jot naaj wi ne fàng si biti loolu teraw ñoo dog gi nga ñun buñ josee si dëkk bi fii ci la ñu wax ñu fii nit ñi fi ne hmm. dañ xam ñetti Ah, heure boo xam ne moom lañ da topp pour dox woor yaa maa dégg moo tax bana yi nga xam ne ñoo de ñëw fii xat mu ne hmm. diisoo nañ seeg ñoom ak ilimaan yi nga xam ne ñoo ne màkk ak loolu tax suñ comité jumaa ji waxtaan ne ñoom yëpp ñoom ñoo ñu wax ne ñetti kii moo si ne yoo xam ne mën nañ see dogee hmm. boo njàkk ba moo la bu ñu neexee hmm. ñu topp dëkk bi nga xam ne moo ñu gën a jege te di fañ da topp yo fi islaam to tu boobaa fu mel ni Seattle wala Vancouver ñooñu lañ da topp ñoom Ah, fay fay fay fay heure bu ñu dogee bu ñu neexee ñu nit ñu dog si hmm. bu ñu neexee tamit ñu topp xiirab alaska bi waaye loolu ku ko def toskare yi ndax moo ne fee jant bi sow doo kii te fii xam nga ni jant bi du so fukki waxtu ak ñaar fukki waxtu ak ñett ah, benn waxtu ci guddi balaa jant bi di so ñetti waxtu mu ne faa nga ci biti loolu ku ko mën a xoor waaye xam nañu koo def nag bu la neexee tamit nag nga topp xiiram màkka bi moo la gannaaw màkka moo da li ni ko gars yi da waxee ñu ne naka head head head head quarters waaw moo da capital islam hmm. bon màkka ñu topp xiiram màkka bi waxtu waa màkka dogee ñu nit ñu dog si rek nag so loolu na ñun nag su ne xiiram màkka bi dañoo topp màkka juróom-ñaari waxtu la ñoo dog ñu nit ñu dog aca man de parti xaaral ma yokk si basaab bi sax mbaa di ngeen am ngor gu mag sëkk bu jamono sansee ba eh, weeri koor gi dugg si waxtu seet xam ne yéen teen bi du génn ba di ngeen war a continuer waa Màkk. fekk gu ma fi de waaye bu xewee it ah ah boobu de moom ah fekk gu ma fi de waaye bu dee. bu jamono saa de ñu def juróom-ñaari waxtu bu ngeen mënee woor. bu ngeen hor xoor waxtu bu amaka di di hor te waru len dogu len ak waxtu hmm. alaka hmm. xanaa kay bu sansé ngeen top waa bi dog gaa ndox mi dina sedd ndox mu tàng ma ngi man de nan na ci basaab bi doon ci basaab nan na ci basaab bi ndox mu tàng ci basaab bi nga bëgg basaab bi ah ayo do nan ndox mu tàng ndox mu tàng ma ngi di wallahi yalla ndox mu tàng ma ngi yàlla maa ngi def li way fekk ñi ma dëkkal def rek motax makoy ya, def way neew ne nag faalaa weddi xamna ne yo yaane bu jante gi sow déggula allah Kubar te man mo fi dikke be legi dégguma fi allah Kubar ah. déggula ko ne dog dog len waru la dab waaye nag allahuma laka sumtu wa bika ah. amantu wa ala ristika wa firri wa ma qaddamtu non nagn ko waxe tudu hmm. man de dinaa ci basaab bi waaw moom kay gaaw nan rek tuko ko ah. ñu dem julli ji takusan basa bangi ngi mburu maa mburu maa ngi lii daw na suma dalu do ci basa bi nan nek ci mburu mi hmm. nañ dem dulli ji timi suñ paré door ceeb bi ci togon na ciéb nañ dem timis jant gi dafa hmm? ci biir. Eh, ma ne timis ci jot na yow bu ma la toppee fii bafil yi yëpp buñ paree dinañ dellu si waat mu kay lekk naa si ah! mbudu mi naan ci basaab bi hmm? basaab bi man faa si war ak ci yàlla tax lii de xam naa ne su ma nijaay kaatin bu ma ko ko waxoon tey hmm. mu ne ma waxu la dégg fa ngay kàcci waaye billaay lii la wolof njaay di ne ku tukki doo gis boo tukkee ngay gis dox weeri koor jant gi ne faa nga di la xool loolu moom moom moom ah waaye mu ñama dem rek yàlla baax